أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم مبوك طالبي مبوك أمد جامي di jàmm yi suñu من سرين عبد الله Serigne Abdoulaye Ndiaye fas yéene ñëw ak yéen ci seen ngir bokk ak yéen secret bu am solo ci salatu bi nga xamne nekatul salatu bu ñuy présenter ndax salatu la bo xamantene salatu bu bari wilaya la bu bari leer way bu bari njëriñ waye bu mëna fajj haajo te bi te bëna may borom koom salatu bi nak mo ngi nek allahumma salli al mawsuufi bil juudi wal karami allahumma salli al mawsuufi bil juudi wal karami waaw mom nak mo ngi jàpp 872 Yon bi nak ñi leen ci fas jox yoonu kimiyaaw la bu ne yoonu kimiyaaw la moy tay nga am soxlay xaaliss bu tak wala soxlay am bëgg faj haajo ci nu gaaw te bette yoon bi da ci dox nek na ci yoon bu wërte bari bëri waaw da ngay ni nga koy liggéeyee nii la da ngay jang da ngay julli ñaar rak nak wala dara di xew su ko defé bo selmalé nga daal di jang salaatu bii di sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima nga daal di jàng astaghfirullah téeméer yoon nga jàng allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim téeméer yoon <clears throat> soo paree door a liggéey salaatu bi salaatu bii di allahumma salli ala al mawsuufi bil juudi wal karami nga jàng ko 872 fois nga ngada di zikr tur yalla bi di sattaru na zikar ya sattaru 1030 fois lepp nak par ordre croissant nga kay def so pare nga jang ñaan gi ñaan gi nga xamne mo ngi nek allahumma altuf bi fi taysiril hasiri alayka yasirun fa as'aluka at-taysiri wal muhafati fi dunya wal akhirati nga jàng ñaan gi 45 fois wa su ko defee nag euh, nga daal di koy <clears throat> bu la nexé nak nga rabalanté ko manam limu salatu bi bang koy zikkar manam limu ya sattaaru plutôt bang koy zikkar manam so defee ya sattaaru 30 fois nga jàng ñaan gi 45 fois so jàngee ya sattaaru 1000 fois nga jàng ñaan gi 45 fois loolu moy tax ijaba bi gaaw lol ci li ngay sakku insha allah rabbi waaw su ko defé nak khatim bi nak mo andal dang koy bind nga def sa soxla ci béytu xaal bi nga def ko sa suuf si jada wala nga def ko sa kalpe bindat ci benen def ko safara daal di koy sango wala nga rayo ko <clears throat> li insha allah rabbi ku ko ñetti fan gën gi yeex bala juróom bala mo mën ñaari fan dana fekk sa ak lu xam la xam lu macha euh, chers frères et sœurs chers téléspectateurs qui nous suivent depuis l'étranger ceci est un secret de salatu ala nabi c'est un kimiyaw qui permet de résoudre n'importe quel problème et d'attirer l'argent vers vous la recette est simple vous faites deux rakas après le taslim vous faites « astaghfirullah 100 fois allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 fois ensuite vous faites le salatu qui suit allahumma salli ala al mawsufi bil judi wal karmi » 872 fois par ordre croissant ensuite vous faites le zikr du nom divin ya sattaru 1030 fois par ordre croissant mais en, en faisant le zikr du nom divin Ya vous l'intercalez avec ce doua. Allahumma altuf bi fi taysiri al-hasiri alayka yasirun fa as'aluka at-taysiri wal muhafati fi dunya wal akhirati 45 fois. C'est-à-dire si vous faites Ya trente 30 fois, vous faites ce doua 45 fois. Ensuite Ya mille 1000 fois, vous faites le doua 45 fois le khawatim, vous l'écrivez et vous y insérez tous vos vœux, Inch'Allah Rabbi. Tout ce que vous mettrez comme voeux dans le khawatim. Et même si vous voulez, vous, pouvez ne pas utiliser le khawatim. Vous faites simplement le zikr, Inch'Allah Rabbi. Avant sept jours, tous vos vœux se réaliseront, que ça soit de l'argent ou autre chose, Inch'Allah Rabbi. Pour les sacrifices, sacrifier des, dates et du lait pour les autres sacrifices. Vous verrez ça en rêve, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.